Salut les amis de sport TV, merci encore de la confiance au nouveau merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également gars de baisser les commentaires. En plaisir au nouveau chaque fois de partager gain information yi mbokk sénégalais fait pour les montagnes 14 régions du Sénégal. Rokh rokh xadi gogo xadi leen di ñi nek également ci l'hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla suñu borom fëgg seen bopp ngeen rek jam. ñi ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire gi ñu deful mo leen fa yobu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen jabot ñi de droit suñu borom xel leen fa daw ci ñu. On avance ensemble dans la magie de Sport TV Baba Show l'actualité en continu actualité nous faisons yéene le Real Brésil ak donc les joueurs brésiliens qui ont porté le Real Madrid mauvaise nouvelle pour Crépin Diata, Milad de di également Sëñ Saliou Dia mi performance XXL bu donc Amara euh, Diouf Lata boobu Naklinga. gars yi nag li nga euh, une sénégalaise wala Ligue 1 sénégalaise en troisième journée baa ngi Tembo FC Djaraf Dadidour, di dóor Jàmbaar HLM ak FC daal di Tembo également ak Tembo TFC Thiès FC Duc Agel euh, Dadidour, di kër euh, Madior muy ca Ligue 2 yooyu noonu ci résultat yi nekkoon ci suuf Raphaël euh, Douamena moom nag joueur gana la moom daal dafa daal di euh, wàcc liggéey ci match de football mais mom nak gars yi nañ né xamone na né dafa feebar mais tamit xam rek parfois aussi day daan ñak pexe pexe la ci ci ñenn ñi quoi ki nga xamné nak moy donc ki di Luis Enrique jurna na nak nag du côté euh, du Paris Saint-Germain et du championnat de France nee nak mom contane lolu ci Mbappé nee Mbappé dugul na tey 3 buts wayé même bu dugalul bi am na leen loo xam war na ko mën di apporter chaque match lolu daal la ko Luis Enrique daal di xamle loolu nag gars yi nag ko def lu graw wayé grawul ki nga xam ne également mooy Boniface le Nigérien gars yi troisième euh, fois consécutivement ñettel yoon yu muy tegle muy nekk li nga xamné donc recrue de euh, l'année hein, du mois plutôt rookie du mois donc mon gars, qui a Boniface euh, en tout cas la gars Nigeria Nigéria équipe de attaque bu barre pendant ça également, Serou Girassi mon milieu qui est blessure tey 15 na 15 but donc en neuf matchs presque qui hein, ki donc l'attaquant euh, guinéen serou Guirassy hein. jëm aussi qui donc championnat espagnol avec le Real Brésil avec le duo brésilien Vinicius Junior Rodrigo qui a a ne gars porté équipe Real avec l'absence de qui nga donc du Bellingham mine conti ci tribune donc c'est dans match mom ak yayam ndax dafa am gañu gañu ci mbagam li nga xam le buteur les buteurs gis nañ Carvajal moo dugal euh, donc top c'est également Vinicius Junior doublé ak également Rodrigo qui a marqué aussi un doublé 5 buts à 1 le ñu équipe bi nga donc Valence ci Liga espagnol le Real qui frappe fort qui nga xam ne nag Vinicius gay yi bi mu dugal mom nak premier bi bi bi c'est anecdotique hein ki nga xam Rodrigo mo centré mo xam ne nag jotu ko mu daal di dugal yi bi hein. dënn bi la dugal euh, ak mbag bi daal di dugal le but donc deuxième but euh, du Real Madrid mais aussi Vinicius qui reprend également la gestuelle daal def li nga xam Cristiano Ronaldo moo ko def ak Real moy calmez-vous hein, du calme du calme gis ngeen ko Vinicius di wax na gay yi des na li nak bi mu soog a dugal mu ne des na yeneen bi yaa ngi et finalement il a marqué un doublé bien entendu Carvajal nak actuellement mo dougal le but le plus rapide du mois hein. de plutôt sax la de la Liga actuellement Carvajal but mais pour l'instant mo gëna gaw hein, ci but ñu dugal ci li nga moy Liga bi saison bi ni hein. saison bi je précise momit it donc mo gok il a permis au Real Madrid d'ouvrir la marque mais que dire de Abibé Abibé Habib Beye gars wax naa ko ak Red Star bu ñëwé ñëwee ba il enchaîne ben défaite la am la cat ñaari nul li des ay victoire la pour l'entraîneur donc sénégalais du côté de Red Star Habib Beye nga xamné nak waxon nañ ne dañ ko na naroon jox ben moment ah, ay lion yoy mais moment moo di bañ ki nga xamné ne également nag aussi gars yi wax naa leen ko top len yenn joueur yi et bokk na ci joueur bi nga xamné mom war ngeen ko top il a encore marqué aujourd'hui Kalisen hein, donc le jeune Kalisen pendant ça également qui a donc euh, fal ak ki nga xam moy donc aussi hein Thiam hein, ñom ñane pour ñëpp nañ euh, li nga xam moy donc ca championnat turc les sénégalais gars yi nag fi mu ne nii ci noorteelu mois de novembre moom ñu ngi wane sen bopp am njeexitalu octobre bi on espère que ça va continuer comme tel pendant ce temps nak yéen ñi ko don laaj mi ngi nii Bamba Bamba Dieng de retour ak ñi nga xam mooy donc waa Lorient gis ngeen ko fi mi entraîné ni mom ak li nga xam aussi moy donc euh, les joueurs sénégalais ñom Formose aussi ak ñom Ndiaye donc Bamba Dieng on espère que dina daal di dellu bientôt ki nga xam nak moy Amara

nañu bàyyi yooyu nañ nañu bàyyi complexe yi foo tax européens yi ak euh, sud américain di jël chaque fois coupe du monde ñu ñu nekk ci ginnaaw rek sëñ Saliou Dia nag nee na tey euh, am na yoo xam ne desoon na mais aussi comme je dis rek nañ ñoom dañoo xaaroon Argentine domine match bi nee na aujourd'hui il y a eu un Amara Diouf qui a été exceptionnel permettre leen ñu daal di gagner mais moom daal ci gis-gisam jàpp na ne daal am na lu daal di des mauvaise nouvelle également pour le Sénégal ak Crépin Diatta on espère que ne euh, rien de grave pour l'instant daal Crépin Diatta yaay regroupement bi nga xam ne bu Sénégal match bi jeex na dañoo waroon a ñëw Crépigno dafa daal di génn ci ab gaañu gaañu loolu nag am tiitaangi indi njàqare ci li nga xam ne nag mooy donc joueur yi ñuy convoqué Crépin Diatta bi nga xam ne nag gars yi actuellement donc il est en forme avec l'équipe nationale du Sénégal gis ngeen ko moom nee woon naa leen ko coupe du monde waru woon dem parce que dafa teel mais bu amee temps de jeu bu doy boo wér blessure bi surtout day waa di ñëw et il a montré ça gars yi li nag moo nekkoon information ñu leen bëggoon a jox hein, c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen di like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de e-sport TV Ido Baba Show bu baax ci la bonus ñu la ja ngeen jëf